على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي حمل على الورى كذا فليكن من إله تشمع بقى ترانا يلا يلا parce que ci xeetu muñ la bokk. te muñ cër la ca yàlla. waaye nag lu mën a xew. muñ bu si ngeen mën di tontu. da ngay xool kii wax. boo ko dee tontu looy wax. ak yow yaay kan. parce que tontu kat. mënuñ passé. ndax xam ne maa ngi yow a yomb. boo yemee ñëpp nag motatuñ jiit. waaye nag ñëpp nag mën mën ko jiite kenn waaw loolu te ku topp nag nit ñi ñu entraîné la ñu boole ci sama yoon yi ñu jaar ñu jaar te jëmul seen loolu وكن كن كن كن أما سحلا أما سب أسيم كن فلنا كن كجيم تينك يبرن يبرن ñu bëri ñu fi nekk yëpp ñu bëri nañ ñu wax seen xalaat wax seen xalaat ndax koo xam ne nee koo xam ne ñi nga amoon ñëpp ci sa kanam nee ñi nga amoon ñëpp ay ay nit yàlla lañ ay nit yàlla lañ waaye li ñu njëkk a jàngal waaye li ñu njëkk a jàngal mooy ñoom mooy ñoom ñu toll li nga xalaat wax li nga xalaat nag lañ ko wax nga jàngal loolu nee nga jàngal loolu libéré na la libéré na la kon nga exploité sa liberté على النبي وعليه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 سن الله خيرك وعلى النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا جاي